yow mi koy waxit di nga mere sa bopp waaye moom xam na ne li ma koy wax ba ma koy xam ci moom booba yii xewul te nii laa ko ma sa xame te lii lañ ma sa ànd yenn saa yu ñu sori lool ci téléphone mu xamal ma ni sëñ Touba ku ma ci nar a wax sax loo xam ne day belee sa yoon yi du la déglu ba pare dinaa leen tooñ nga ma te loolu nag Mbàkke fii nga ko jëlee ndax fii la lépp xewe léegi la ko sëñ Cheikh mi di nettali ndax bi muy ñëw fii ak njàmbaar ko fendi ak mën a bañ waaye su yemoon ci cër bi ko yàlla joxoon rek mën naa bañ a séq ak kenn leen waaye xeetu yonent bi ko wër la munta toog di leen seetaan ci ak tumuraanke amuñu leader amuñu ku leen dimbali loolu bañ googu moo la dugg tey jii ba lii ngay bëgg nga di ko wut kon li leen boole ab link la boo xam ne sëñ bee ko liggéey mooy liy boole murit bu gis moroomam tey mu wax ci Sëñ Tuubaa mu jooy taxamu ko loolu moo leen boole te lépp lu ñuy joxe ci àddina sëñ tubaa ñaan na ko yàlla ba yàlla jox ko ko léegi nag ñoñam ñooy jël saayir si fexe exploité ko loolu nit ñu mënu ko jëriñ ndax daf ne lii jàmmi lan na zahiri wa baatini bi taahiri aslaha zahiri wa baatini maa yàlla nim ñoŋele baatinam bari na sax lu ñu gis ñu jàpp ne baatinu sëriñ bi la saayiram képp la ndax moom saayiram yàlla da ko ko rafetal waaye ñan ñooy saayiru sëñ bi mooy nun parce que ñun ku ci nekk étiquette bi nga takk bu Sëñ Tuubaa dañee ci yow dootoo ko takk dootoo ko doon kenn ku ne ci ñun étiquette bi nga takk bu Sëñ Tuubaa dañee ci yoon dootoo ko doon kon li leen likki mooy sëriñ bi bi ñu yegsee léegi la sa mbokk mu baax mais di soxna may nga xam ne jàmbaar la ci kër gi ak liggéey bi wax ne nañ fi yegsi ba ma yegsee man laa la woo jot yàpp naa damaa jot keneen waaye bi mu ko nee nañ ñëw moom daa sawar ci ñëw ndax xam na li leen boole mooy Sëñ Tuubaa kon nag Mbàkke noo ngi lay ñaan yàlla gën la fee yàggal jàppante gii ngeen jàppante ci Sëriñ Tuubaa waral ko te suñ Tuubaa di sabab bi loolu mooy liy dëgg li ci des yëpp lay jeex micro bii ma téye balaa moo mat ñaari fan ci bekkit lay mujje balaa moo mat ñaari at kon lii dëgg te di sax mooy pas-pas yi te xam nañ ne jàmbaar nga yàlla la yàlla dëgëral nga ñaanal ko nag ndax bi ma ko nuyoo léegi nee naa ko honorable député laay wax walla sëriñ bi sëriñ bi moom la ab taalibeem seereer si ñaanal ko ci barkeb sëñ tubaa yàlla may ko kàttan may ko ay ndam ndax lépp ci defaru sëriñ bi rek la jóge yàlla itam ma may may la ndam sàmm la ndax ndax défi la défi la bu njëkk ba faw nga am yenn âge yi doora ñu door laa takkal yenn grade yi soo taxawee assemblée di bëgg a wax wax ne barki sëñ Touba wala Touba laay defal nangam bu nit ñi di koy yëm damay xam ne moom comprendre na door a dem balaa muy dem fële comprendre na li xew door a dem fee li xew mooy lan mooy génn kàddu rek am loo xam ne du xumaag du réer te foo ko jeexalee mu delloo la ko muy borom Tuubaa moom moom mbir la moo xam ne du xumaag du xuur du réer ndax boo ko jeexalee dama ko mas a wax ci ne leen sëñ Tuubaa sax mooy bul tuf bul tuf matière bi ko tubaab bi dox man sëñ bi laa ci gis ndax tey da am bul tuf ma am bul tuf ma envoyé loo xam ne bi ma la koy envoyé kenn du ko gis nga am ko ma am ko mu des ci man te ko réeralee boo ñëwee ma delloowaat la loolu mooy sëñ bi waxtu wi muy def ci yow kenn du ko gis waaye bis boo jeexalee ba réer boo ñëwaatee mu joxaat la ko te moom ku yéwén la yàlla yàlla def leen ngeen yàgg koo taam ndax avant muy doon lii ci comité d'organisation bi moom ñoom sëñ du ñi ñoo ko àndandoo ak maam xaadi mii imam ñuy doxal liggéey bi ngir màggal gi ñoom ba bay si fi mu yegg si tey jii buñ ne la woon pare nga yendoo itam fii ngay toogaat dundal màggal gi ndax li nga fii la jógee moom mii su demoon tey bañ na ko yaay président de la république dana ñëw fii Mbacke Bari gii ndax xam na lim am muy daw ci deretam mooy sëñ Touba yàlla yàlla yàggal ànd bi gën laa dëgëral gën laa sàmm. ne assemblée lu mu xat-xat du tàggoog alxuraanam. du tàggoog xasaayitam. waxtu suñu borom bu jotee. lu assemblée xat-xat. nee lu coow li bari mais da gis sëñ Cheikh Thioro mu doon ki mu doon rek loolu nag sag la ci ñun ñun ñi nga xam ni lu leen wàkk xurinu ne ma nga nuy sagal su ko yëgee ak su ko yégut ne fonk nañ ko ci sant nañ ko ci ndax bu demee woon neneen it dañuy jaaxle tenue. Mhm. Ah, ak ñoom mhm. ne li mu doon lépp xam na ni fii la ko jëlee ne dama doon mottali am wax waaye am yow itam ñu lay sant ndax bi màggal gi gisee gis nañ say taxawaay waxuma ak lu jiitu lii te fii daa bokk ci ñetti dëkk sëñ Touba yi sëñ Touba Daaru Salaam Ba Mbacke Baari gi daa bokk ci dëkk sëñ Touba. lii nga seede ci jàmbaar jii politique mën naa yokk pouvoir waaye du yokkub juddu kii laa juddu di mbokkum ñëpp di sëtub sëñ Mor Anta Sali bàll ak maaram di as gor waaye muy jàmbaar li nga ko seede rek doy na fee mu ne ci assemblée bu demee l'islam rek la fay wane ca kaw ca kanam sa bisu bi nii nekk lay demee te fii rek ñu delloo santaat sëñ Fallou sëñ Fallou daa ubbi jumaa ji ni Serigne Touba ginnaaw jumaa ji noppi na Mbàkke Baari Jolof lu mu fonkoon la dikk yabal fa maamam santal ko fi loolu loolaay dox nag ba fii rek la am avant lii lépp di am yàgg nañoo dégg muy kaas ci Mbàkke Baari ndax Mbàkke Baari ni mu toll lañ ko war a def fii la sëñ Tuubaa xëye woon ni xarat yow ma sabti saa mi ne asar li xidmatil muxtaar fii saxar safar Pape Djibril bég nañ am na délégation léegi bu ñëw dikk ni ko bis bennu indi nu ànd kook yow ci yow lañ jóge léegi nga dagg sa yitte yëpp ñëw te lu xew nii ngay def bég nañu lool am ca kaw ca kanam kontaan nañu sëñ Cheikh Thioro moom de xanaa li ma waroon wax lépp sëñ Amidou wax na ko. sëñ Cheikh li ñu waroon wax lépp Amidou. xam naa fi may yëkkati sama kàddu rek mooy di sant bu baax a baax Pape Djibril ak sunu waajur yi nga ñu indil ndax ku kuy sa waajur rek sunu waajur la ni mu ko waxee léegi rek Amidou ci yow la ñuy tàmbalee ndax màggal gi bi muy jub si biñ kook moom mii daf nañu loolu sama bis la jur ngeen di ma ci tàggu plateau spécial ba may def nga xam dama ko am seen TV. dama dama leen koy jagleel. ngeen ñëw waxtaane fa Mbàkke Bari te laa ma leen ci benn dërëm. loolu yëg-yëg mënu ko weesu. ndax fii moom ñun dañ fee nekk ay jëwriñ rek. waaye patrimoine la boo xam ne ñun murid yëpp ñoo ko bokk. ndax dafa bokk ci pàkki Serigne Touba ndax Serigne Touba bi mu jógee Touba fii la ñëw sànc di fi xaar nattu bi. te fii la gisee fii la njëkk a gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Daaru Xuddoos nee nañ lu mel ne ab réew doxoon na seen diggante kon mbir lu àdduna yëngu-yëngu nit doo fàtte la nga doon te ñun lii lañ doon féete na dafa mënut a ñàkk ndax àdduna moom ku fi nekk du ñàkk ngay yëngu ci dara waaye nag li ñu yëngu lu mu bëri bëri it xam nañ li ñu boole te li ñu boole tout naa ñu ngi koy sàmm ba tax na Pape Djibril mi it loolu mu seere ci man rek moom moom laay seere ci man ndax loolu nekk assemblée nationale waaw ndax ba tax na daal kontaan nañ lool ndax fii moom bu fi tegoon tànkam fenn fu mu yem rek doy na ci sëkk ndax duñ yemale ki ñu fekk mbàkk bari ak ki ñu fekkul de ku fi ñëw sa bopp nga fi ñëwal ndax loo fi ñaan suñu borom bu fekkee dëgg na ci yow suñu borom dana ko may mm. ndax Cheikh Mamadou Lamine Bara daana wax naan mm. bi Serigne Touba waree ci ngelaw wi hmm. suñ borom dana ko lu bëgg mënu ko lépp mënu ko defal naa lépp hmm. kon bu fekkente ni Serigne Touba am na lépp hmm. lu mu doon sàkku ci boromam fak ko boromam defale foofu ko fa dem sàkku fa lépp suñu borom ma fàll may lépp ba tax na ñu ngi ñaan yàlla suñu borom kàddu tànk yi bañ koo neenal suñu boroom taxawu leen sàmm leen ñun moom fi ñu nekkoon fa lañ nekk yëngu-yëngu munta ñàkk ku ci nekk am na foo far mhm. waaye rafetal gi rek moo am solo te sax taalibe it nga bañ ko yàq mhm. te suñu taalibe moom duñ ko yàq te duñ ko wéccee ku yàlla bind it te duñ ko jëlee dara ba tax na kontaan nañ trop mhm. ndax ni ma ko waxee woon rek foo yemoon ci kër yi muy kër sëñ Cheikh mi muy kër sëñ Abdou Karim gi nga jóge muy kër Laaj Serigne Tàkko muy kër sëñ Cheikh Dioro gi nga jógee ndax sëñ Cheikh Dioro dafa jeexoon tàkk ci biir kër Cheikh Mamadou Fadal ba tax na lu bëri njaboot suñ Fallu gi ci moom lañ nekkoon ba tax na mënoo xàmmee njaboot suñ Cheikh Thioro ak njaboot Cheikh Mamadou Fadal moo tax li am job di wax di am solo mooy ñoom sëñ Modou sëñ Cheikh mi ñoom alaaj mooma leen baare mi soxna am Cheikh mi mënoo leen a xàmmee ak suñu nit ñi suñu jëmm yi ndax benn la du ñaari kër kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax baax ba ci soxna may mais nga xam ne suñu doomu bàjjan la yàlla boole ñu moom it bis bi taxawaayam rafet ci loolu comme ni ko amee duñu wax donte lay defar waaye waaw góor war nañ koo def wax nit ngir ko jëful mm. ndax li muy def lépp mën na ko cee mën ko cee bañ a fekk kon daal kontaan nañ bu baax a baax a baax lii la ñaan rek suñu borom sàmm leen aar leen naq leen bi day di leen sant rek di leen gërëm bu baax di am mbégte lool ci fekk leen fii di ñaan yàlla it nu yàgg leen fee fekk yàgg leen ziyaare sa diggante ak papa Jibril itam ni ngeen wax maanaam nit faaw mu am fu mu féete àdduna tëdde noonu waaye li leen boole dafa ëpp loolu yëpp moo di valeur yi nga xam ne lépp sëñ Tuubaa moom dafay wax ne lu muy am te ak taalibe nekku ci soxlaaw waaw te it seede naa léegi fu ñu mën a toog it fu ñu taxaw ne naa moom day sedd naa ak taalibeem ci ci murit gi la judd ci la yaru ci lañ ko nàmpatal xamut leneen sëñ Tuubaa la gëm moom la moom la yaakaar àddina ak àllaaxira lu maslaa mi bare lépp xam na li mu doon xam na li mu am yar bi itam suñu borom def na mu nekk ci moom kon nag séentuwunu benn yoon ngeen gis ci moom safaan waa jubal rek woote jàmm woote ak dal woote ab yar looloo nekk ci moom jeex ci sëñ Tuubaa lool nag te li leen boolee moo di sëñ Tuubaa waaw maanaam yëngoom ak dalam ak léppam sëñ Touba kon nag euh, bu loolu weesoo liñ leen di seedal rek moo di nun de sant nañ ko gërëm nañ waaw gëm nañ ne itam nun nu seedeel ko loolu euh, lu am njariñ la te muy dëgg mm-hmm. lu nekk da koy daj ci ay waajuram mm-hmm. kon nag yaakaar nañ ne fii ñu ñëw tey mm-hmm. euh, fi sëñ Touba waaje woon dem ak li nga xam ne moom la fi jële ci yoon woowu nu ngi ñaan ruusital yi ñëw ci moom ba lépp lu mu yóotu ci réew mi suñu borom defal ko ko te mu bokk koog yéen ndax yéen bokk sëñ Tuubaa te mënu leen koo séddoo kon yàlla na suñu borom defal leen jàmm defal leen tawféex gën leen boole ngir jëmmi sëñ Tuubaa ñu ngi koy ñaan fu ñu toll ñaan yàlla def jàmm seen diggante ak tawféex rek waaw te rafet nañ ci njot bu baax ñu ngi koy ñaan ci doole sëñ Tuubaa doole sëñ Baara doole sëñ Mamadou Mouhamadou Fadel doole képp koo xam ne kii rek dañ koy tudd di tudd sëñ Touba yàlla na leen sunu borom subhaanahu wa taala defal pajuk aajo defal leen mbir mu jub te gën leen a defal ngeen seey ba jeex tàkk fu ngeen tollu rek ci sëñ Touba jërëjëf Mbacke. tàllal kàddu yu sell. amiin moo ñëwoon fii ci honorable Serigne Cheikh Thioro Mbacke ànd ak kilifaam. mu seede seede yu rafet yii waaye Pape Djibril it seedeel Serigne Cheikh Thioro seede su rafet